xam naa lu mu jaay rek xam naa sa waay Cheikh Yérim du maye dara <laughs> du maye dara kon loolu lan bëggoon a wax li tax ma tontu tey tontu ba Ousmane Sonko ci affaire tribunal affaire dossier boobu nga xam ni léegi lu waaye doon jaay mu lamb ku mos ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex loolu jaay nee na ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex waaw Ousmane Sonko moo ne woon dafa yàkkamti ñu àtte ko waaye eh, gars yi waaye man de bu may fen ne leen da ngay fen ñoom ñoo man damay dem eh, Ziguinchor le tel tel date la ba juge bi war a jël juge bi faale wu ko parce que du mooy wax juge bi ban jour lañ koy entendre ñëw am xol yareetu ko naan juge bi dama jël la xaw ma 6 la la woon avril xaw ma juge bi man damay dem Ziguinchor je faale ko sax kat bu Ousmane Sonko pour wax juge bi jour bi ko waree woo pour entendre ko xale bi dafa fuuy réew xamul boppam sëñ Bassirou Gueye mi wax sëñ Bassirou Gueye la la def li muy wax ci moom dara du ci dëgg daara du ci day wut ay de Macky Sall lu xam ci complot bi Cheikh wax na nee na Macky Sall yàgg na ko sàng sutura nee na fu koy waxee saa waay dafa tere monsieur ba mu ne bàyyi la jàmbur c'est sa vie privée mu ngi ci livre bi Macky lu mu def lu mu xam ci Adji Sarr lu mu xam Sweet Beauté lu mu xam ci ku ku ndigam ni metti mënatul toog seeti benn xale ñoom it ko dëkk ca indi Saalum ya mu war ko raay boofu bu wér Macky Sall daal moom ku am sa feebar guddi ñu war laa raay raay mbelle moom moo la war a faj Macky Sall daal mu ci biir complot bi waaye na bàyyi doomi jàmbur ji Macky Sall am na yaay am na bàyyi am na njaboot am na soxna am nay xarit am na parti am na réew mi bi jiite ñu respecté ko lool joxaat ko ko mu yére Union africaine yére Afrique yore bu rafet bu sell ñëpp naw ko Poutine naw ko ñëpp naw ko ba ko recevoir fu mu dem ci ngand yi toog bokk ci ngand yi nga am président mel noonu yow nga nekk fonctionnaire bu doon sell ba jàq la fa sa place sa morom ngeen dégg ma ne ah, El Hadj Diouf nee ko dàq liggéeyu kaayam El Hadj Diouf ñëw ci procès bi du ko tontu El Hadj Diouf El baa gisaan ne ko xanaa affaire bi yaa ngi El Hadj Diouf la ma foog ne maa la yow de yow mi yow la gis ngeen vidéo Adji Sarr boobu guddi googu yëpp man la jëlee man la amee ragal sama taxawaay ci kanamam jour procès ba ak ku ak ku ko rey la yemale xam ne du ko may dara dara ba dara boole jeex tàlli sama kër pour mu dellu ginnaaw ma ne ay <laughs> baax ngeen njàkk yéen a ruux ngeen kay ne autant ngeen di ma gën a attaqué di ma saaga di saaga sama yaay sama baay sama juddu lu ne ngeen di ma ko wax day sàmm ñoo ñu xam ne toujours ma ne leen seen ndey liggéey dara baaxu ci ndax ku am doom ba sañ mu tekki waaye sama doom ji saagakat rek la waxkaturu bor rek la diggante Canada ak Maroc ak États-Unis ak live saaga rek ak yàq der ak sos ak doom yoo xam ni dañuy toog ci tele yi mbubboo oustaz wala imaam imaamu seytaane di yàq ay gor di wax ci ñoom ci ñoom tooñuñu la ñu naan la cheikh nangam ñu def ci El Hadj Diouf El Hadj Diouf xamula dara ndax Ousmane Sonko bu seeli moo la jaral lu ne nga da nga def El Hadj mais tooñ tooñ du gàllaaj ci boo deeyee dina ne El Hadj Diouf lu mu la defoon mi koy wax lii yëpp kon lu mu liggéey lu ñu liggéey ma jël ko ci bu tuyaaba lu ñu liggéey ci lu baax rek ma jël liggéey ba dee El Hadj nangu liggéey ba dee El Hadj nangu ba ñu supporté liggéey ba dee jaraaf nangu liggéey ba dee ndagam nangu xam nga fa am solo donc li laa bëggoon wax xale yi bu leen topp Ousmane Sonko sénégalais yi Ousmane Sonko mooy kan du ci juddu gënu leen du ci xam-xam gënu leen du ci yar gënu leen du ci jaar-jaar université maa doon diriger étudiants yi député bay diriger député yi ministre bay défendre Sénégal parti PDP bay défendre réew mi waaw Ousmane Sonko luy mbiri tam lu may di leen fan rek di leen nax rek ndeysaan di leen laaj xaalis ak a ñàkk yërmande nee na addiya baaxul waaye moom dañ ko jox addiya Ousmane Ousmane Sell bi moog Guy Marius Sagna oto cotisation Seydina Omar Touré Seydina Sell moom it cotisation tuur cotisation pour kan Ousmane Sell mi ay gars yi yeewu leen kii kii eh, billaay kii ko joxoon waxuma la waxuma la Sénégal mais jox ko benn ministère rek dañuy wax affaire yi cour des comptes yi ku mel ni Ousmane Sonko xaalis bu ko xamoon ci suuf bala may dee dégg waa ñuy naan def na ay ñaataat impôt domaine te kenn gisu ko mu def fa dara ah nañ dem laajte foofu nee na ma masul jël lu mu amul lu moomul def lii takk sa bopp yomb na ñooñu dañ def enquête bloc fiscal dañ dem laaj ñi nekkaloon dañ laaj ñoom tey buy jaay nañ laaj syndicat bi ñu amoon ñoom nañ laaj mbiri suuf lu ci Ousmane Sonko mel nañ laaj Mamour Diallo min doon ñaan suuf ni ko damaa bëgg nga may ma benn téere bu ma làqoon làqoon sa waay sira la téere bu ma làqoon bëgg ñu ñu jox ko Pastef comme siège xam nga ñoom dañoo xam suuf si fi nekk waa domaine ak waa cadastre tey bu ñaay mën a mën a directeur du cadastre état xamul suufam de cadastre moo xam suuf yi des yi état bi am di xamu ko Mamour dama bëggoon nga may ma benn terrain bi mu làqoon ma régulariser ko dëkk sama siège parti Mamour Diallo ko non nu ko waaye waat bind ma mu bind ko naa ngi lettre bi may avocat Mamour Diallo de dama ko accusé ni dafa sàcc ay milliards loolu ko mere woon maamul mu bind ko ba mu téye bi pare da ko joxuma ne dara xol bu tàng mu ne ko dara dara chantage dossier nangam maamu dossier boobu pare wutoon mu ne quatre-vingt-quatorze milliards la maamu Diallo sàcc <laughs> Sénégal yi xamul dara gëm ko comme ni ñu gëmee woon Aliou Sall jox ma sama quatre cent mille fi am at kàcc yu rëy yi fi am at yi sos yu ngand yu potaa yi fi am at yi yëpp soo ko def yi la pour yàq dere ñi yëre réew mi pour ñu ne moom ñëw anti système moom mooy anti système moom mooy ki nga xam ne loxoom dafa set te loxo a ngi doon tilim ñun kuk xale yu bëri da naan bu ñëwee danaa am liggéey ndax bu ñëwee Sénégal yi liggéeyal bu ñëwee ngeen dee de ndax li ngeen am akus néew dañ ni luy xeeñ luy ñor bu baxee xeeñ ñëwagul ci lu ngeen amul këf ko Saar yalwaan leen jox leen ma jox leen ma je benn leader politique bu yalwaan ku dul moom la yalwaankat en chef s'appelle Ousmane Sonko jox leen ma jox leen ma jox leen réew mu pauvre comme Sénégal jóge ci Covid bi yërëmoo Sénégalais yi naan jox leen ma cotiser leen ma ma ñëw jël seen réew mi moom leen téye milliards yi jaay pétrole bi attention Ousmane Sonko moo wax may dégg élection présidentielle moo tax war nañu enquête ba xam ndax du ñoo ñoo ko jox xaalis ñi ko ñi mu seqal bi nee na bu ma jëlee réew mi damay résilier contrat pétrole yi jox ko ñeneen waaye ñeneen ñoo est-ce que dañoo ne ci <laughs> ah, comme nee nga ñi Macky Sall jox contrat pétrole yi boo ñëwee da ngay résilier boo résilier da nga jox keneen keneen kee jox ñaata lay jox ci suuf loo wax ak moom.

moo tax tey intéressé wu ma affaire Adji Sarr bu dee ñeme na na wuy ji fa mbax na nekkee benn bu dee mu am dëkk ñu ko boo mu dëkk ñu rëqandi këpp ñaar rek moo ci mën a am bu wuloo boppam na wuy ji làmb ji sàcc na promoteur bi tëgg na ko jël na avance ah bu bëreewul nag loolu mooy leen sàqi na sàqi nag am na ci làmb daw am na ci làmb ragal tàppet am na ci làmb gis-gis koy war a bëril xool ko ni eh kii muscle bi oh, eh kii bu ko duggee fan laa jaar bu daane ko non commencé dama da sama baaraam dafa gaañ damm naa ci baaraam dama doon ànd dama doon kii échauffé def échauffement sama baaraam damm na ba retour bëri waaye tey xam nga daawul dem journaliste laaj ko ay question waaye tey xaw nañ koo rey parce que léegi dañ koo xaar ba léegi day day bàyyi ñu laaj ko question ñu ne ko ndax da nga wujji mu ne du wax wii du wax non ah nii wii nii non <laughs> Macky Sall daal boobu amul droit wax nii wii nii non waaye moom mi ñu renvoyé wee eh, wujjil te Macky moom kenn forcé ko moom dañu ko da dem par force nii wii nii non léegi am na nii wii nii non bu bees nii wii nii non nii wii nii non boobu moo bees léegi nag yàlla mën a atte dana saboté Macky ci ay néew yi noo léegi nag néew yi nii noonu xam nañu moromam chanson bi xale yi jëleen boobu chanson école primaire yo nii wii nii non mais nag l'heure est grave li may wax nii du fo dëgg la dëgg takk leen seen ngemb ndax seen bàyyi seen yaay dañu yaakaar xale yi bu leen nekk ay dof yu ñu utiliser moom ay doomam war a jàngi comme ni mu ko waxee war a dem mosquée ñee di dee ci place de l'Obélisque yéewu leen journaliste dama leen ñaan ngir yàlla yéen lañu am yéen ñu war a éduquer former yee yeete dama leen ñaan ngeen de woon Sénégalais yi kan mooy Ousmane Sonko ci wax waxeet wax waxeet Macky am na droit troisième mandat léegi mu wër Sénégal am Macky bu fi defee troisième mandat yore teg moom nee ko yaa ko fi waxoon du ma wax ak France dindi naa France yëpp Ziguinchor du ma wax benn télé wala rajo France dem toog RFI ak France Séq la waaw loolu lu mu tudd ku dàq weddi boppam Sénégal ci monde bi mooy Ousmane Sonko mu sellul mi Ousmane Sonko mu sellul mi fu mu sellee fu mu ko wonee nan la ko doxee pour mériter ko sell la koy mériter sa comportement sa pratique ah mais Cheikh Yérim Seck rek laa koy bàyyee foofu laay terminer Cheikh Yérim dimbali ma ngir yàlla kii yaa yaa yaa yaa ay ci xale bu réew Cheikh fajal ma xale bi waay bu boobaa nag bu ñëwee tribunal beneen bi ñu doggali ko ah face à face mënul ñàkk ku mën sa morom duma bëre ku mën sa morom duma jërëjëf si vous avez des questions je suis à disposition